Well dal jam ci keur Bamba Imo keur Bamba Imo moy sen agence immobilière bi nga xam dafa spécialisé wu lol ci kuy jënd keur kep ku bëgg jënd keur ci Touba ak ci réew mi yépp ñolay location keur ñolay lay waye it nga am sa keur keur gu rafet defar ko ba mu yànj bëgg ñu gérer la ko ba mu bax la ko verser sa xaliss ñun ñoy keur Bamba Imo fi ci Touba keur Bamba Imo fi ci Touba spécialiste lañu tamit ci ay terrassement de maison wala boog terrain plan bâtiment construction de maison le plus jëm immobilier jokkoo la Bamba Immo dañu am agence de sécurité sénégalaise pour gardiennage De gueule, De lay luweel ce kër waaye dañu koy garder de dara sécurité Nous dañ une entreprise bu service sous transfert d'argent assurance de véhicules, toute branche le siège mi ngi nekk fii ci Dakaro, marché Dalifort 77 339 88 55 wala 77 233 36 17 wala 30 33 832 37 18 suñu succursale ba ci Touba place ba Touba Touba 28 Diano route nationale bi ak station Mac, Kurbamba Imo 77 446 23 40 wala 33 978 40 89. mbokki Hakiti, c'est une émission les 15 minutes de Kurita. maa ngi ñu nuyu di leen ziar bu baax a baax di amal mbégteeg bànneex bu baax ñëwaat ak yéen ci beneen émission nee naa la saa su ne mbégteeg bànneex laay am toog fii ci Touba Mbella TV ngir dikkal leen di gën a neex ci émission macha allah. waaye nag dama fay jaar nuyu bépp internet boo xam te ne si yaa ngi suivre chaîne bi di nuyu bu baax bépp kilifa diine ak kilifa aada bu nga xam te ne yaa ngi yeewoo fii ci Sénégal. di nuyu bu baax sama xarit yi les sénégalais de la diaspora maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax. waaye aussi maa ngi nuyu ñi nga xam te ne si ñoo tëdd ci lalu hôpital yi feebar maa ngi la ñuy ñaanal tan bu baax a baax ñi nga xam te ne si caabi da na fii te ginnaaw maa ngi la ñaanal yal na leen yàlla jàppale ba ñu dellu siwaat euh, si seen njaboot te lu leen fa dugal ba leen fa delloowaat c'est très important nee naa la bërëb boobu jombul kenn mbokk yi nag fa laay jaaree nuyu képp ku nga xam ne si rek da ngay safoo di tiitaroo bu baax a baax Touba Mbella TV waaye nag comme ni ngeen ko xamee mbokk yi naa leen. Euh, ñun mënuñu dem sans suñu sponsor leader muy waab Kër Bamba Immo nga xam te si ñoom dañuy yëngoo ci lépp lu nga xam te ne si immobilier la ñu ngi nekki fële ci diwaanu Maris nee naa la yow mi nga xam si yaa bëgg dëkkuwaay bu baax du fenn fudul ci Kër Bamba Immo kon mbokk yi daw leen gaaw dem foofu nee naa la sans suñu sponsor leader émission bi du mën a yànj kurita du mën a yànj nii ba ngeen koy toog di xool. kon jaajëfal naa leen bu baax a baax mbokk yi nag euh, mbégtig bànneex laay am saa su ne comme ni ma leen ko waxee tey nag ñu fas yéene waxtaanee lu ama am solo ndax émission bi ay thème la saa su ne dañuy indi thème yi nga xam te ne si moom la nit ñu di dund ndax dëkk bi la war a mën a waxtaanee bëri na lool tey nag mbokk yi fa jaaree wax leen euh, thème bi nga xam ne si moom la ñuy waxtaanee muy lan promotion canapé. parce que nak amna sama ben émission man ko don wax en fin d'émission mané prochainement dinañ ko def muy promotion canapé promotion canapé nak nek na thème bo xam tan si mën na né dafa xawa sensible parce que ñi koy dund dafa bari lol lol lol tay ji yow mi tok dima sétan keneen ak keneen ku nga xam tan si yang may même boudé ben yoon nga promotion canapé na dëkk bi dafa metti ndaw ñi bëgg nañ liggéey de waaye dañoo xamul bunt bu ñuy fëgg ndax tey da ngay fëgg buntu tey nga dem ci benn société ñu lay chantage muy jigéen muy góor rawatina nag sama mbokk jigéen ñi tey jii liggéey dafa jafe lool ba tax na am na yenn proposition yi buñ la koy proposé nee naa boo àndulee ak sa ngor rek dangay ngay di jaay sa ngor waaye comme la ma sama yaay daan faral di wax saa su ne nee na mara naan bu la taxee naan petit bu robinet tijjee nga daal di ruus am na ñoo xamante ne nag daanaka tey jii seen situation lu mu demee tax na ñuy dugg dugg ci ay tuuxu duuna seen situation nu mu demee tax na tey yenn proposition yi ñu koy accepté te nekk na loo xam te ne si dafa ñaaw waaw nee naa yow mi nga xam te ne si yaay toog di ma déglu di def promotion canapé mën nga nekk sama pàpp mën nga nekk sama nijaay mën nga nekk sama mag mais ana lu ñu loolu ana lu ñaaw loolu lu waral ngeen koy def mais tey jii ki nga xam te ne si moo dem di la seeti mais da ko war a xoolee comme bëtu rakk wala bëtu doom ba nga bàyyi ca kër ga wala sa rakk ba nga bokk ak bàyyi ndax nga xam si mooy dem di uti ji wala ka nga xam te ne si mooy dem ñëw di di la solicité daanaka tey jii bu amoon feneen du ñëw ci yow. bu bu jaaxlewul woon du ñëw ci yow ndax dëkk bi dafa metti liggéey amul nit ñi tey mën naa ni tey dëkk bi boo seet sax lépp yokk nañ ko dund bi metti lool lool lool nee naa lu may wax saa su ne dix mille francs sax boo ko tojee balaa guddi mu jeex moo tax nag dangeen war a jàppale sama mbokk jeunes yi moo tax tey ñu looloo lay tax ñuy dugg ci yenn affaires yi bu dee jigéen looloo waral tey ñuy accepter promotion canapé mu jaaree fa day doon genre prostitution déguisée mën naa wax loolu ak ña ma ko sañ a wax parce que tey ki ngay demal tey di def promotion kanaape tey loolu genre prostitution la mën nañ ko wax te dund duñ ko wax te dee tey jii société yi bëri bëri bëri tey ñu ngi dund loolu société yi bëri tey ñu ngi def ay promotion kanaape waaye yow mi nga xam te ne si tey jii yaay dem ci société boobu noonu di def promotion bi mais est-ce que tey jii poste boobu di nga ci jot ndeysaan am na ñu bëri bu jéem ñu jot ci poste boobu am na ñu bëri ba tey jii may wax ak yow mosuñoo xam sax liggéey boobu doon ban façon liggéey la ndax da ngay ñëw tey ñu ne la waaw boo defee lii ma jox la lii mais duñ la mës a jox dara am na ñu bëri ñëw leen ci man ne ma Kourita man kat diw daf ma ne naa ko defal lii mu jox ma poste bi waaye mosu koo defal dara tëddee la pour nga jox poste bi dañ koy wax tëddee la pour jox la poste bi mais tey poste boobu noonu mosoo see jot mosul jot ci poste boobu noonu tey dañ koo nax ñaata nit nañ fi nax tey li ma gën a metti nag euh, ci yenn directeur de société yi nag ak ña ma ko sañ a wax nee naa seen bureau yi ay maire gàddu nañuy gàddu jël ko teg ko ci bureau yi wala seen canapé yi nga xam te si moom moo nekk ci bureau bi loolu nañuy tuddee promotion canapé xam naa nag am na ñu bëri xamuñu luy promotion canapé mais promotion canapé mën naa ne ci canapé yi nga xam ne sii moo nekk ci bureau yi ci moo boobu la sukkandikoo ñuy wax promotion canapé ndax nag ci canapé yooyu noonu sama mbokk yi ah canapé yooyu dañ ciy def lu bëri canapé lu bëri xew na ci. lu bëri xew na ci canapé yooyu am na ñoo xam te sax canapé doyatu leen ay mère gàddu nañuy gàddu <laughs> dëkk bee ngi toj dëkk bee toj euh, tey bureau boo ci duggee lu nekk am na ci man mii di wax ak yéen euh, comme niñ ko waxee muy milieu euh, milieu mannequinat bi milieu mannequinat bi milieu animation ak yenn société yi am na ñu bëri buñ la wax yi lañ fa dund très récemment ndeysaan yéen a ngi gis Miss Sénégal onze Miss Sénégal 2020 euh, lu ko dal te loolu pourtant bëri na ci dëkk bi bëri na lool ci dëkk bi dafa bari ñoo xam te ne si ñu ngi dund loolu mais dañ koo waxul nee naa tey am na ñoo xamante ne bu ñu waxoon réew mi toj am na ñoo xamante ne tey bu ñu waxoon ah kon tey yenn soci yenn directeur de société yi yenn kilifa yi nga xamante ne si ñoo nekk ci dëkk bi ah seen masque daanu. dafa bari ay kilifa yo xamantene dañuy mubboo kilifa te ñu ngi def naka sudul nonu di profito ci xalé yi yàlla bu mu fekk mu doon ko xamantene si dafa naïve waye nak ndeysaan sama mbokk jigen ni amna ño xamantene lu len lu len siw jaral lu len wax télé jaral ah feeñ télé lu len jaral kenn xamul nu mu toll parce que tay da ngay gis ben kurita nga ñew nga ne ko euh, dama nga ñew fekk benn suq sax boo ko fekkee ci bunt bi wala vigile yi nga xam te ne si ñoo nekk ci bunt bi ñoom sax ndeysaan bu ñu la proposé yenn proposition yi sax nga daan nga daal di accepté te pourtant ñoom duñu ci dara tey da ngay gis koo xam te ne si mu ngi liggéeyee ca rajo bi mu ñëw di la wax ni euh, man xam naa directeur bi sama xarit la wala directeur bi <laughs> sama waay la <laughs> boo ñëwee tey jii ah nañu génn wala boo ma defaree lii ma boole la ak directeur bi mu jël la vite fait.

baax nañ loolu xam naa dinañ ci ñëw en fin mission mais tey jii man li ma yëkkati mooy ñi nga xam te ne si mooy yàqkat yi ñi nga xam te ne si tey jii ñooy profito euh, ci muy jigéen muy góor parce que tey góor ñi ñoom seen wàllu fan la am na góor yoo xamante ne dañ la ñuy jàppee genre gigolo ñu sañ ko wax nga dem ci société nga fekk fa jigéen jigéen bi doon directrice bi ba mu am baat ci société bi mu lay chantage moom tamit ndax lan dafa am lu mu bëgg tey jii mais da ciy bëri da ciy bëri am na jigéen góor yoo xamante ne ñoom tamit dañoo ñeme jaay seen góor ba pare am na yenn jigéen yoo xamante ne euh, ñoom lan la ñuy bañ a gis mooy ji góor bu ceene dañuy gis góor yi ceene yi romb leen ci mbedd bi tey jii wala nga xam te ne ñu ngi ut liggéey ñu jéem a profité ci yow léegi nag yow ku góor ki bu fekkee nag. tey jii da ngaa bëgg a jaay sa ngor da ngay jaay da ngay doon genre gigolo rek nga nangu rek doon genre gigolo loolu nag dafa bëri ci dëkk bi am na góor yoo xamante ne ñenn ci góor ñi ak ñama ko sañ wax duma ma généraliser nag parce que am na ñoo xamante ne macha allah tey jii fa ñu toog place bu ñu toog seeni ay diplôme place bu ñu toog tey seen ñaq moo leen fa teg waaw ak ñañ ko sañ a wax waaye am na si ñoo xamante ne tey jii ci loolu nañu jaar duñu wax jigéen ñi kase mais am na góor yoo xamante ne tamit tey foofu nañ jaar tey jii gis nañ jigéen boo xam te ne mu ngi ci société ñu def ko promotion canapé mais elle est elle pas à l'aise dans cette société ndax da ngay gis ni dafay ñëw tey jii dañ koy teg ay charte ba pare tout le temps elle est stressée seetlu leen lool ci nga xamante ne si ñoom nañuy def promotion canapé bu yàggee sax au final. day mujjee quitter société boobu noonu parce que lan elle ne se sent pas à l'aise mais kon tey jii ça revient à zéro tey ça revient à zéro tey parce que tey yow li nga xam ne si moom nga doon ut ba jaasee ngor tey nga dem tey jii ah ba am euh, ba yenn situation yu fekk la fa mais dañuy dem ba directeur bi ci boppam da lay tegaat yeneen chantage te xam nga promotion canapé nekk na loo xam te ne si euh, mën naa ne du jeex. du jeex mukk ko parce que tout le temps directeur bi mu ngi lay chantage ci leneen tey jii boo accepté lii suba mu ak joxaat la beneen charte ginnaaw suba nga ñëwaat mu tegaat la beneen coono ginnaawaatu suba mu tegaat la beneen chantage maanaam dafay doon benn continuité boo xamante ne yow ku jigéen ki boo maaree sax da ngay mujjee quitter société bi dem xooli leneen dafa nekk loo xam te si loolu dafa am moo tax nag sama mbokk jigéen ñi ñoo war a yeew ñoo war a yeew te xam ne tey jii nit ki li nga war a am tey ilaa yow mi tey di nga ko am gis nga yàlla bu bindee ci sa jëbi tey danga war a réussir wala yàlla bu bindee ci sa bi tey yow mii di tu tu arriveras très loin mais da dem kenn du la téye wërsëgu yàlla wërsëgu doomu aadama yàlla moo ko yor wërsëgu doomu aadama yàlla moo ko yor moo tax nag waruñu jaay seen ngor euh, tey comme euh, bu ma jëlee exemple exemple bo xam te si ci milieu média la koy jëlé tay mun nga dem ci radio tay nga fekk fa mën na ni directeur bi waye directeur bi ca bopam du ko ko lay proposer promotion canapé de même néna ka nga xam te si mo koy euh dañuy faral di wax ben baat néna jitt yi ayul dagg yee ay je pense que je donne la <laughs> xaw ma comment on dit ça wala mais en tout cas ñi nga xam si ñom ñoy jitt yi ñom à chaque fois sax du ñu yëg li xew ci société bi war nañ nag di jéem a xool seen employé nak nañuy liggéeyee wala chaque wala euh, chaque yi tâche yi nga xam te ne si moom nañ leen jox naka nañ koy gérer hmm, ak ñi nga xam ne si tamit ñoom ñooy ñëw di déposer tey nit ki mën nga ñëw am talent lool lool sax mën naa ne waaye tey nga dugg ci bureau ki nga xam te ne si moo war a jël mais ba xam nga ni tey jii yenn proposition yu mu lay proposé boo ko defulee tey jii. mais foofu duñ la fa mës a jël sa CV dañ koy mujjee jël jox ko maire bi ci bopp koñ bi mu jaayee ko caaf baa mu jaayee ko gerte xottu des fois sax nee naa di nga dox ci mbedd ba ci yàgg gis ko gis sa CV ci jaaykat euh, gerte caaf yi wala gerte xott yi wala ñi nga xam te ne si ñooy jaay mburu des fois nga jékki jékk ba si yàgg ñu laxasee la sa CV da ngay daal di waye di nga xam ni kon ñooñu sànni nañ sa CV bu yàgg moo tax nag euh, man duma jël exemple fenn ci média lay jëlee exemple parce que ñun comme ay nitu média nañ nee naa ñi nga xam te si ñoo nekk ci média yi war nañ xoolaat seeni jox doxalin doxaan nga nit bañ na wala def nga ko yenn proposition yi mu bañ jëloo ko ci société boobu noonu wala jëloo ko ci média boobu ah jëloo ko ci rajo bi baax ci télé bi loolu day xaw a doy waar kon bàyyaat leen ci xel bu baax a baax a baax ba pare tey jii mën naa ne Sénégal bralon nekk na loo xam te ne si dafa metti tey boo amulee bras ci yenn société yi boo amulee bras ci yenn média yi doo dem bras mun naa ne fépp la tey kayit bi nga xam te ne si moom ngay dem uti sax si mairie ba loolu yëpp bras la bras nag muy nee naa sax loolu émission à laa ciy def dinaa ci ñëwaat incha allah parce que dëkk bi nekk na loo xam te ne si dafa metti ndax tey boo demee tey Euh, promotion canapé mënul weesu tay nga dugg ci société des fois nga dem ci benn nit mais li nga xam te ne si moom lay mom lay mom lay def ci ki bi mënuko amna am na ñoo xamante ne amuñu benn compétence si si si si bërëb ba ñu nekk amuñu benn compétence si poste buñu len jox mais parce que da ngay dem mënuñu liggéey bi comme on dit on ne met jamais les gens qu'il faut à la place qu'il faut tay jii ben Omar yor ay diplôme machallah hmm jang nek crack am masterum dem ba tollu yenn niveau yi di dem di jaay ay promotion ci mbedd bi ak beuri ndaysan man xam nga buma ma gisee yenn jeunes yi ndaysan ak ñoo bëgg a liggéey tey bu ma ci mbedd bi chaque jour que Dieu fait damay gis ay jeune muy jigen muy gor ah nek ci yenn société yi balé mbedd sax dañ koy def té ils ont leur diplôme wala di jaay promotion te pourtant ils ont le diplôme ils sont diplômés tey jii bu la waxoon fi ñu ci seen niveau d'études, nga ne j'en vois chaque jour que Dieu fait nga y sax am koo xam te day saret mais pour l'homme, la montagne de dëkk bi on ne met jamais les gens qu'il faut à la place qu'il faut La montagne de lan moo société boo dugg ah hein, Sarr et frère Thiam et frère loolu dong moo fi bëri mu nekk loo xam te ne si tey dafa doy waar euh, nañu jàppale suñu mbokk jeunes yi parce que tey ñàkk jàppale boobu nga la ñuy ñàkk jàppale moo waral ñuy dugg si yenn tuuxu duun yi ndax gis nañ fi tey jii euh, j'avais fait une émission comme ça tey su ma gisee ndeysaan sama mbokk jeunes yi di dugg ci ay gaal di dem di bàyyi si seen dëkk mu doon lu metti ñu ñàkk seen bakkan tey ñaata jeune tey ñoo ñàkk seen bakken tey ci géej bi kenn xamul nu mu toll nañu jàppale suñu mbokk jeunes yi jeunes yi bëgg nañ liggéey di ñu dara de surtout jamono ji man de li ma gis ci dëkk bi ñu dara koo romb mu ngi sol t-shirt PVC di def ay promotion ci mbedd bi mu nekk loo xam te ne si dafa metti surtout pour un jeune boo xam te ne si dafa nekk un jeune diplômé gars yi léegi xeebuñu dara ñu ngi ci terrain bi di ko di fighting ndax gisuñu ku leen jàppale gisuñu fu ñu liggéeyee xeebuñu dara dara dara dara kon nañ leen jàppale yow mii nga xamante ne yaa may déglu nii di ma seetaan nga nekk un directeur de société nekk koo xam te ne si ah yàlla may na la yenn euh, lijaas yi jàppaleel suñu mbokk jeunes yi muy jigéen muy góor xoolee ko sa rakk xoolee ko ki nga xam te ne si ah, mët na la doom nga xoolee ko doom xoolee ko rakk wala sax nga xoolee ko yaay parce que boo xalaatee nii yaay moo lu jur rek am na yu bëri war ngeen ko mën a éviter kon jàppale leen suñu mbokk jeunes bu baax a baax mbokk yi nag xam naa nag émission bi fii lay jaaree tàggatoo ndax lu ñu war a mën a wax ci promotion canapé dafa bëri lool. je pense que même on fera une deuxième partie.

jàppale leen suñu mbokk yi euh, suñu mbokk jeunes parce que soxla nañ ko lool c'est un euh, c'est un euh, c'est un cri d'alerte mën naa waaw pourquoi pas comme étant une porteuse de voix jeunes yi dañoo sonn ñu ñëw ci man ne ma di waxal ñu ci loolu parce que comme yow tu es la voix des sans voix rawatina des jeunes ma jàppale len ci loolu

jàppale leen da ciy daal di am solo kon mbokk yi jaajëfal naa sama caméraman bu baax a baax Omar ndax tey bu ma toogee yanj ni c'est grâce à image yi rafet yi macha allah ah ak euh, nee naa stagiaire am bi Pape bégg naa leen bu baax a baax ah, di jaajëfal aussi suñu sponsor parce que nee naa sans suñu sponsor du ñu mën a dem wa kër Bamba Imo nekki diwaanu maris nee naa la képp ku nga xam te si rek da nga bëgg habitation bu baax waye yow mi nga xamantene ya bëgg dëkk way bu baax da ngay daal di daw rek dem ci kër Bamba Imo nekk diwanu Maris kon mbokk yi jaajëfal naa leen bu baax baax. bu fekke nak yëkëti na fi kaddu bu do xam ci si bu téggul la ma ngi tuup di jéggalu nee naa la mëna wax taxuma tok fi di wax mais nattu la rek ñu tok fi di wax kon mbokk on se donne rendez-vous très prochainement sur euh, Touba la TV merci beaucoup à tout le monde peace and love dal leen jàmm ci kër bàmba Imo kër bàmba Imo mooy seen agence immobilière bi nga xam ni dafa spécialisé wu lool ci kuy jënd kër képp ku bëgg jënd kër ci Touba ak ci réew mi yépp ñoo lay gunge location kër ñoo lay gunge waaye it nga am sa kër kër gu rafet defar ko ba mu yànj bëgg ñu gérer la ko ba mu baax luweel la ko di la verser sa xaalis ñun ñooy Bamba Imo fii ci Touba kër Bamba Imo fii ci Touba spécialiste lañu tamit ci ay terrassement de maison wala boog terrain plan bâtiment construction de maison lépp lu jëm ci immobilier jokkoo la kër Bamba Imo waaye nag dañu am agence de sécurité sénégalaise pour gardiennage dëgg la dañ lay luweel sa kër waaye dañu koy garder de dara du fa yàqu sécurité ñun dañ ciy dox ci entreprise bu wér te wóor am nañu it service transfert d'argent assurance de véhicules toute branche suñu siège mi ngi nekk marché d'Alifor 77 339 88 55 le 77 233 36 17 le 33 832 37 18 suñu succursale ba nekk Madame Touba Palace suñu place Touba Touba 28 Djano route nationale bi station Mac Kerbamba Imo 77 446 23 40 le 33 978 40 89.